auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim fas yéene lëggéeyal soxna jaara buso dëgg jaara gën moo gëni jaara say maya tax sa doom di imaam jaara dëgg jaara gën moo gëni doom jaara ma say maya tax sa doom di imaam nga yàlla bila gishin amu filemaas te it amoo falemaas rafet nga taggaki taas sab kem amul démb waxumaa tey karima nga yow bi ki sanaa war rida wal faxru yegg nga kaw ku mos la yooraat loxoom yaay mos mosaat ci lu biir ña mos la xam nañu xam nañ tey na lem du xewar ku mos la yooraat loxoom yaay mos mosaat ci lu biir ña mos la xam nañu xam nañ tey na lem du xewar ummal muridiina mag ñeeg ndaw ñi ñépp a ca yam yaa jox sa ween bañu fer bot nga ñépp ñu yam yaa jaaratallaahi yaa maryam garaat bi nga am mëseesu koo am yëral taarix ku weddi du am maryamu mooy tur wi jaaraay sab garaat ba di law ci réew yi ak réew mi yaay waxtaan wi yaa xew xew xew nga te doo xew wi dëhëran sarmadan abadan saw tur du sàppeeti tudd ko ñuy jañal kamadan ku boof fi yow faji aajoom aajo jum mën doon laajal ña boofoon ca xabloog aajo yañ ame woon laajal ñi boof tey ba xam seen aajo ñoom fajuwul ñépp nga faj seeni njàmbat hakada sikkuwul xam naa ci lëf mante xam naa benn benn yitam yooyu seeni aajo danga faj seeni ragg itam xam naa ci lëf man te xam naa benn benn yitam yooyu seeni xaajo danga faj seeni ragg itam xam naa ñu gàddaay dëkk ak yow ngir tawat yu ñu am nga xëy ko faj woppindee la wax jañal ko alem xam naa ku gàddaay te néew askan waral ko nga fat mu mujj see ci sa biir baw askanam di mébét mébét mi mooy di ko xemmeem bëgg doon ko te moom bëggul di kennati ngir yaa jox ko ngën ci soloom da teral nit ki ba su yëgal dana beew ngir may yu rëy yi fi yow ak say ngëneel yu di siiw ku ne ngi bàyyi cosaanam xam na yaa di sayaan dangay dañal mar saxal meññet ku ne ngi dagaan ku ne ngi naa poroxaan mar te doo coroxaan ku ne ngi taamu dëkk ak yow ñépp wër la di ñaan ku ñaan la may nga ko xàmmee woo ka am ka amul xajoo nga yow ñépp xàmmee woo ka man ka mënul ku ñaan la may nga ko xàmmee woo ka am ka amul xajoo nga yow ñépp xàmmee woo ka man ka mënul sa fukki at ci nga itqaan alxuraan ba mu daj xefzan wa rasman wa tajwiidan ku wopp nga faj nga jàll tafsir ko ba mu jeex peek ulum ya bu wér tawxiid nga jiital tofal lislaam tasawufu bir ibnul muhayyab adab siiraag luxaat ya nga peeg ba jekku leen lool nga jóg nag soobu ñàpp di yéeg yëg nga ba jot ka nga doon wut muy boroom bi la yow mu sotti lay may yu dul jeex ay ngëneel ak ngëneel yu di dëw yéeg nga ba jot ka nga doon wut muy boroom bi la yow mu sotte lay may yu dul jeex ak ngëneel yu di dëw dëw ci ñi déggul wolof mooy ngëneel yu yuy sottiku bari lool ngëneel yi ak may yi tas naa tas ba ñëpp a ci jot ku ne ngi foog ne danga mber maal ko ngir yamu fa yi ak may yi tas naa tas ba ñëpp a ci jot ku ne ngi foog ne dangaa mber maal ko ngir yamu fa santay li war kon ba far waajib la ñépp la war mag ak ndaw ak góor ña ak ñay woddu tey sori sér tey sor ay sér santay li war kon ba far waajib la ñépp la war mag ak ndaw ak góor ña ak ñay woddu tey sori sér ku ñëw siyaar si la jaar sab teen sa ndox ma mu mos tàggoo na ak tawatam ndeem ak tawat la ca fas lum fas ca ndox ma lum fas ca ndox ma dañal ndeem pas-pasam dëggu na xaalan mu jot loola fawran hakada kawe na lum fas ca ndox ma dañal ndeem pas-pasam dëggu na xaalan mu jot loola fawran hakada kawe na saalum dangaa soppi suufam jox ko ay xiyamam mu gotti suuf yépp ngir yow cax la jéem a la xam saalum dangaa soppi suufam jox ko ay xiyamam mu gétti suuf yépp ngir yow cax la jéem a la xam foo féete foofaa di pàkku buur kañ ku ñaani fa am fi saase lay faj la ngay ñaan saahi neema na am bamba na yow ku la teewal fekk foofa jëmmam mbaas ndiir mu fekk la foofe faj sa aajo nga dem mais ku ne jàng fi yow saa jëmm dang fa dajeel ma ñaag la sedd la faj say aajo jox la ngëneel kilee di maam jaara kilee di maam jaara xirtaas mën mën la peegi mayam xikaayatan suma xattan géej moyul tefesam géeju xatam tam la yàllaa xam rëyam fa mu yem yow mi mënul ndox bañal bul soobu neema na am sëriñ Basiiroo ko dundalaat Bamba jox ko ndigal fekkoon yabal na fa ay gaayam ne nañ ko dundal sëñ baarataal ma ca fettoo fekki Bamba Jolof mu yónni ko ca dongaam yii limam bawrif sëñ baarataal ma ca fekk fettoo fekki Jolof mu yónni waat ko ci dongaam yii limam bawrif sëñ kër Jëbu sëñ Mbay Mbuuma ab muritam ma ba awaak Musa Paate nit ñu yiw bari jom fuutam xarit teewe ñoom waaj nan ba jëkk yëgal di bernde tey wàcc ay kaamil dikar di kuréel ba bamba kay jox borom taar baag mbégam ma ndigal kay wett lil ma samaam joojee fa xaama ajal ba bamba xëy jox borom taar baag mbégam ma ndigal kaay wetti ma sa maam joojee fa xaama ajal fa xaama tawan ilayha boole jom aku fit xëy xuus ci ab foore ñam àndal amul ku cërët mahmoud yëgal kaang ma dëkk mbaakol te xëy te rafet karoot ba mooy xaj mahmoud jaane moo rëyu fit mët laam fa mbay laam ca àndaaleem ya lañ na nga xam kañ naa muhammadu faal quraan ca limbala tam bañ fa fanaanee ba bët set Cheikh Bachiru ne mu mel ne Touba di saa yéene te am ci yaqiin bañ fa fanaanee ba bët set Cheikh Bachiru ne mu mel ne Touba di saa yéene te am ci yaqiin taawam ba Cheikh Moustapha fab yéene jooja matal matal ko ciw fit aku njàmbaar aku rafetal moo ko defub dëkk bam am lépp lum war a am lamp ak courant ku yoon saahi neema na am moo fa amal marché ak i tool wéy dëkkal fa ñoñam samp fa ay daara di fa bay noor nawet bari jom lekkool ya moo ko fa def forage ya moo ko fa def moo rëdd bedd ya njàmbaaram gu réy ga urif ku wopp it faju fajukaay beet jëfam la yëgal moom mës la àndiku cig nekkam wallaahi ajal jëfal na maam jaara kër Cheikh Bamba am na fa kër ña bokk maam Balla ay saat seeni kër mu defar ku Bamba jur yaa nga fa kër muy jigéen ak góor mu teg fa ñuy saytu ak a taaral bëlëf du fa ruur xabru ba yaatal na bunnu xet gu neex ga xasal foo jaar mu gand la jëf yaa ngi ne fang yëgal teen ba mu sekkar ci ndox may wal ba ñépp di naan baxin baxin am na ndam am woy wa daalika baan yii yépp am xëy la yi yépp am xëy la daaraam jee di ngont lu wér ngont lu man xëy la tax siisam la làq na cër seex murtada tegu xeeram baay ba dib xaritam ànd ak rakam ya bokkal seex basiiru mbégam mu samp dara ja ngir maam jaara ay turandoom mu xëy dëkkal leen fi ngir yar leen ku agsi fi luum ñuy jàng quraan di mokkal haaka di yàqal xafdan wa rasman wa tajwidan te kenn du la jël ab lim bu mag moo fi mokkal bind xam lu fi lëf ci diine ak métier ak seen xeet ya ay yëfi yëf daara la jot kenn du yelwaan kenn du buun fa ndawal kenn du lekk tusuuroo ñam ya ñu ngi ko desal dañ leen di fóotal di leen paaseel di leen raxasal di leen baleel néeg ya ñuy cuuraay ku weddi wëral dañ leen di lettit di leen xëy tocce meeka solal yu ñuy nuroo wuutalew askan amul fa yëgal wut ndeyi daara yu dëkk ak ñoom guddee ki bëccëg di leen jëlil añ ya ak reer ya te boole ca mbég Cheikh Moustapha nii la def maam jaare yii wuyu leen labbu ni sosam baa ngi murit jege leen Cheikh Moustapha nii la def maam jaare yii wuyu leen labbu ni sosam baa ngi murit jege leen waggam ya ñooy daa iray maam jaara yii ko yanul naalam bu rëy bile ak pastéef bu lenn raxul waggam ya ñooy daa iray maam jaara yii ko yanul pas naalam bu rëy bile ak pastéef bu lenn raxul booba ba tey ñoo ko ànd ak moom di yokk bu wér gannaaw ba lañ gën a pastéefooti haka bu char daa ira réew mi ak yooyu bitti réew a ci yem seen taxawaay benn taxawaay la ku gëstu ko xam xaalis lañuy joxe ak saaboo ki ceeb ki yëf boole ci koddaay di joxe cuuraay wa daaka urif kon sant leen war na kañ leen war na saahi yëgal di leen teral war na kon jaa jëf ci lii ñu saxal yàlla na buur yàlla fay leen yokk leen i ndimbal ci barke maam jaara ak doomam jigéen ji jëfal cheikh muntaxa la ko bàyyee cheikh muntaxa la ko bàyyee yaatalaat na bu wér yokk na sàmm na siiwal jëf yi yokk ko tur rokkas na suuxat na meññet maa ngi tabbi bu wér ñor xomm jàpp doo daj ab jaxooyaku der jumaam ji feejal feeñal na yéenay Cheikh Basiiru bu wér ci dundalaat poroxaan yaa rabbi dolli ko wér yaay buur bu loo bëgg a def def ay atam na ful ay yoon yoon ba mu doon kiimtaan borom bi wuyul lum naal na àggale lum yéeneet na xëy ko jëmmal kun fa yakun moo di sag moomeel billaahi ajal sëriñ isaaxaa ngi yaatal moo xalaat parrainage mooy ndeyi daara te parrainage boobu am na ci xaas sëriñ isaaxaa ngi yaatal moo xalaat parrainage mooy ndeyi daara te parrainage boobu am na ci xaas biir réew mi mujj na xam lan moo di ak parrainage ba mujj leer nañ ñi parrainage tur wi yegg na faas waa bitti réew ñépp xëy xam tur wi xam njariñam xam na lebal yàlla mooy moom lay tekki neema na am réew ñépp xam xëy xam tur wi xam njariñam xam ne lebal yàlla moom lay tekki neema na am téeméer nga jox yàlla par bis moo di denc bu wóor du réer du jur perte bénéfice ba moo ëpp muur téeméer nga jox yàlla par bis moo di denc bu wóor du réer du jur perte bénéfice am ba ëpp na muur day wuutu addiya yit jox day wuutu addiya yit joj jox nga jaara bu ca gën yàlla jaam du ko war wuutu addiya yit jox nga jaara bu wér leb leen te yàllaa ca gën buur yàlla jaam ba du ko du war benn nga xëy jox mu fay lay junni moo jar a jox benn nga koy jox mu fay lay junni moo jara jox moom loo ko jox ful ko lay def yàlla jàmba nu nax benn nga koy jox mu fay lay junni moo jara jox moom loo ko jox ful ko lay def yàlla jàmba nu nax maam jaara jàngi ku sóoboogul fexeel dabe yow ku sóobu bul geesu na wéy léegi des na la ndaw maam jaara jàngi ku sóoboogul fexeel dabe yow ku sóobu bul geesu na wéy léegi des na la ndaw maam jaara jàngi ku soo boogul fexeel dabe yow ku soo bu bul geesu na nga wéy léegi des na la tam allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu wa rahmatullahi wa barakatu